mbokk yi tey ñu dellu am mbégte euh, fas ne seq jataay ak euh, Mously Diakhaté mi nga xam ne moom moo jiite euh, jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci coalition Macky 2012. ñu fas yéene waxtaan ak moom ci seen coalition boobu nga xam ne ay weer ngi nii ñu dégg jafe-jafe yi nga xamante ni moo ci am ak piccoog mbaaloo gi rawatina tamit seen partie bi di APR. nga xamante ni euh, ñu bari ñoo ngi génn di wax ak lu jëm ci ñetteelu mandat Macky Sall euh, Mously Diakhaté réew mi FM a ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay sekk. di am mbégte jàkkaarloo ak yéen. di nuyu mbokk yi ñuy déglu yëpp. Euh, Mously li ñuy njëkk waxtaane wala ponk bi ñuy wax mooy jëm ci coalition Macky 2012 coalition Macky 2012 est-ce que dayo bi mu amoon avant présidentielle 2012 ñëpp xamoon taxawaay bi mu amoon est-ce que dayoo boobu ba léegi coalition Macky 2012 ma ngi koy am ak tamit ndax gëdd euh, wala cër bi ko Macky Sall joxoon ba léegi ma ngi koy jox cër boobu. waaw defe naa ni coalition bu nekk ci opposition dem ba am président de la république kay euh, dayo foofu la yem ndax euh, sant yàlla julli ci yonent bi xam nga dayoo moom tubaar fa kàlla macha allah. Euh, weesuwul ngay bëgg dara yàlla far la ci ànd ak yow. kon dañuy sant yàlla. julli ci yonent mais amoon ngeen dayo boobu amoon ngeen dayo 2012 mais am na. la dayo bi ëpp ndax euh, ba ñuy am dayo boobu euh, mën naa ne xëy na coalition ba ña ca nekkoon bariwul woon ñoo xamante ni amoon nañu ay ndomba tànk tey coalition bi boo ko xoolee tubaar fakàlla macha allah. ñi ci nekkoon ñëpp président jox na leen ay responsabilité pour ñu jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la ko réew mi sas Euh, yow kon jàpp nga ne coalition Macky 2012 dayo bi mu amoon ba léegi nii ma ngi ko amee maanaam doole ji. tey la tey la waalo gën a aay tey la waalo gën a xam nga coalition boo xamante ni bañ koy teg xëy na bu amee euh, benn député wala ñaar ca la yem amul woon ministre bu nekk ca moom amul woon ay directeur ay nit ñu ay bonne volonté rek ñoo ca nekkoon mën naa la ni euh, di di dugg ci réew mi nag leen wax yaakaar ji nga xam ne am nañ ko ci le président de la république pour ñu fal ko. defe naa ni coalition boobu tey boo ko xoolee mu am ay ay député yu bëri am ay PCA am au conseiller am euh, am conseil économique et social environnemental nekk ci insti institution yi ci réew mi partout defe naa ni dayoo foofu la war a yem. Mm-hmm. waaw dayoo foofu la war a yem dayoo mënut a weesu ngay laaj réew mi ñu jox la ko nga wëlbatiku yor ci ay responsabilité fas yenn nag di ñaan yàlla mu dimbali la ba nga ba nga réussir mission bi nga xam ni moom la réew mi teg ci sa kaw. léegi euh, Mously est-ce que tamit tey wax nga ne dayo bi am ngeen ko ba pare ba tey yéen a dayo boobu noonu maanaam euh, doole ji est-ce que euh, cir bi leen président Macky Sall joxoon ndax gis nañ ne 2012 coalition la boo xamante ni tey moo lëmbaaje réew mi est-ce que cir bi président Macky Sall mu ngi leen koy jox ba tey mu ngi leen di bàyyi xel. waaw xam nga bàyyi xel coalition Macky 2012 mënut a weesu nga nekk ci coalition bi. Eh, eh, yàlla def nga jël réew mi jël Aminata Tall mu bokkoon ci coalition bi nga dénk ko institution bu mag boobu ñuy wax conseil économique et social et jël Abo Marie Coll jox ko ministre de la santé jël Ibrahima Fall jox ko éducation Mously Diakhaté nga yóbbu ko assemblée Aji Mbergane Kanouté nekk assemblée jël Assane Dia def ko PCA jël Maodo mbay def ko directeur jël basiru Diakhaté yóbbu ko au conseil jël euh, Alaaji Ibrahima Mbow euh, yóbbu ko au conseil économique et social environnemental jël Moustapha Fall Thié def ko PCA HLM bari et tant d'autres kon defe naa ni le président de la république dañuy wax ni ko gàcce ngaalaama Cissé Diédhiou nga yóbbu ko assemblée. waaw ah, mais Samba Julde Thiam nga yóbbu ko assemblée. kon moom li ko waroon li ko waroon ci coalition bi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla def na ca temtalaayu kàttanam daanu nag dajul suuf surtout coalition boo xam ni tëjuñu ko waa ko créer sa GIE ñëw dugg. ku am sa association ñëw dugg ku dajale sa ñetti nit ñeenti nit dikk daal di wut saw tur dikk dugg alors que vraiment mais boo xoolee képp koo xamante ni Macky Sall àndoon naa yow 2012 di wut réew mi ba mu paree jox na la cër ni la jàppal fii ma jàpp fii ngeen jàppale ma ma defar réew mi. waaw mais. Euh, loolu nag loolu rek la man mënul la ne. waaw mais Mously am na si ñu bokkoon ci coalition Macky 2012 ñu joxoon leen ay ndombay tànk mais bëri na si ñoo xamante ni tey fi ne nii kenn dénkatu leen ndomba tànk ku si mel ni Aminata moom moomu ngay wax wala Eva Marie Coll Seck wala Ibrahima Sall wala keneen ak keneen. Ibrahima Sall bañ ko jëlee ministère éducation dañ koo jox si kàpp. jëlee ko fa. aw Marie ñu def ko ministre d' jëlee ko fa. ministre d'état la. Mhm. waaw aw ah, Marie Coll ministre d'état la jël Moussa Diop jox ko de Dakar dem dikk. dooma ni kenn koo xamante ni Macky Sall àndoon naa ak moom 2012 te jox ko ab cër Ndaan Diouf nga yóbbu ko conseil économique et social et environnemental le président de la république def na li mu mën. d'accord waaw mais mais Mously euh, li nga xamante ni tamit tey ñu baree bari wala taskatu xabaar yi ñu baree bari ràññee nañ ko mooy yéen. Euh, élection présidentielle yi 2019 bi muy waaj gis nañ ne président Macky Sall recevoir na leen fi waxtaan ak yéen amoon ci yéen confiance ñaaxoon leen pour ngeen wàcc ci terrain bi parrainage beeg yépp est-ce que ginnaaw élection présidentielle yi recevoir na coalition Macky 2012. waaw loolu loolu wax naa ci xam nga xam nga erreur est humaine. non man mosuma dégg nga wax ci. waaw da nga ko da dégguma ko mais wax naa ci boo tàppee ci net bi ku nekk wàll wam ko jëlee xam nga man Mously Diakhaté may nit koo xam ni. sama ànd ak doomu aadama damay wax ni ànd Facebook la amul bàyyi moo tax lu ma naqari ci doomu aadama dama koy wax ndax damaa bëgg ànd ak nit ki ànd bu sel dama bëgg boo jàppee fii ma jàpp fee parce que nag affaire bi ay responsabilité yu ñu partagé la le résident de la république mënul lépp moo tax ba mu jaaree fee di wut réew mi ñu ne dañoo jaar fa ca des naan jox leen ko ko am nañ ci moom yaakaar defu ko wax nañ ko loolu paase na ci leneen lañu ne ci leneen la ñu ne nekkuñu ci yooyu. d'accord euh, jërëjëf mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, seen émission pencum réew mi tey ñu invité Mously Diakhaté jiite jigéen ñi bokk ci coalition Macky 2012 euh, seen coalition boobu soxna Mously yow yaa nekk présidente jigéen ñi fan yi dañu gis ne am na ñeneen ñu Moussa Diop maître Moussa Diop mi nga xam ne mooy coordonnateur bi tabb beneen kuréel boo xam ne moom la wax ne moo jiite euh, jigéen ñi ban tontu nga ci indi. waa tontu bi ma ci indi daanaka yow dangaa leeral sénégalais yi la am ndax ku nekk xam nañ le bureau sortant mooy préparer l' assemblée générale maître Moussa Diop nag juum na juum bu métti juum na juum bu métti parce que bu fekkente ni dañ laa teg ci euh, coordination wu Macky 2012 ni la coordonnel nga fekk des mouvements intégrés dama deen li jaadu mooy nga woo ña ko jiite woon ne leen préparer leen ñu def ay renouvellement waaye dem wuti yeneen jigéen teg ko nag moom le président de la république wax dëgg yàlla defe naa ni loolu sax du ko neex loolu sax du ko neex li am solo te am solo nag mooy mouvement des femmes Macky 2012 man dama ko musul wut lii leader yi ñoom ñoo yi ñoo woo ma ma ñëw ñu ni dañu bëgg ñu organiser jigéen ñi musli organiser ñu jigéen ñi ma woo jigéen ñi mag yi Macky 2012 yëpp na ma leen wooweet demuma di leen woowi ndax xaw ma leen woon waaye ku ci nekk dama la ni yónnee ma sa jigéen ku ci nekk na ma yónnee ñaari jigéen. ci leader yi. ci lider yi ñu yónnee ma ñaari jigéen ma waxtaan ak ñoom organiser leen tegal leen règlement intérieur génne ay commission ba mu yegg man leen wut leen ku leen jiite nag ndax lii lañ ma digaloon. ñoom ci seen bopp jigéen ñi ñu ni ma ñun duñu wuti fenn te jàkkaarloog liñ bëgg dañoo bëgg nga jiite ñu jiitu ñu topp sa ginnaaw di la jàppale. loolu mooy li nga xamante ni lu am la en l'unanimité en l'unanimité mm-hmm. muy mouvement de femme boo xam nag wax dëgg yàlla xam naa par principe sax nag lañ cee xeex waaye mouvement de femme la boo xamante ni ñaar dërëm yu ca dugg ak lu ñu mus a def rek kenn musuma caa fekk ci leader. du kenn benn leader bu ne mos na maa génne ñaar dërëm def ko ci lii jigéen ñi di dem du ba ñuy wote ca foire ba du bañuy dem prison Thiès du conférence de presse bu ñu bu ñu def wala point de presse bu ñu def wala ay déplacement yu ñuy def déedéet tubaar fa kàlla macha allah nag may sant yàlla di xam ni loolu noonu ma cay def daf maa war parce que looloo tax le président de la république delloo ma sama ndomba tànk assemblée nationale. daf ma koo delloo ndax bul fàtte ni man bi may ànd ak président de la république boobu député laa la ma cay def nag ma di ko ca def ak xol bu sedd ndax la tax ma di ko ca def ak xol bu sedd mooy jigéen ñi ma àndal dañ maa jiital te fakkatalu ma moo tax ba leen Moussa Diop bëggee diviser dañ ko ne ma nga wooyi présidente Mously Diakhaté moo ñu jiite te kenn fekk ko ca moom moomu wut yeneeni jigéen di teg beneen mouvement parallèle mouvement parallèle xaw ma nu mu koy tuddee waaye nekkul mouvement de femmes kooku noonu amul benn réunion boo xamante ni jigéenam mus naa ñëw fekke si réunion les femmes Macky 2012 musul am. Mm-hmm. waaw mais mais mais kon uh-huh. bu bu tegee mouvement de femme beneen ñun duñu bett. mais ñooñu mu teg noonu est-ce que yéen ñooñu ñu ràññeeku lañu woon ci Macky 2012. déggoo li ma la wax ñun musuñu gis jigéenu mu euh, maître Moussa de près ni de loin. amul kenn ku ko mos a représenté ci biir les femmes Macky jigéen ña fa nekkoon mooy man maa fa nekkoon ak samay jigéen. Mhm. Aji Mbergane Kanouté Bassirou Diakhaté Moustapha Diagne professeur Niang Ibrahima sàll modèle Alaaji Ibrahima Mbow aw Marie Coll Seck Paamu APR yi et tant d'autres Alla Dieng Salif ma Maodo Malick Mbaye d'ailleurs jigéenam moo toppoon ci man euh, Imam Mbaye ñaa te te jeeju mais ñooñu ñooy Macky 2012 <coughs> mais ñooñu ñooy Macky 2012 ñooñu boo leen génnee ci Macky 2012 la ca des kooko jox mu kooko sarax mu delloo la ko jigéen ñooñu ñoo fa nekkoon di liggéey ak man ba léegi ba léegi yaa ngi ànd ak ñoom. bërki démb àllarba bi ñuy def conférence de presse ku ci nekk dañ la defal sa cheval yi nga tëyal ko sa bopp ñu di leen lim kenn par kenn kon defe naa ni euh, loolu moom du du du lu ñuy waxati. d'accord ñun daal lañ ca lañ ca war lañ ca war mooy gunge xale yi parce que xale yi ay xale lañ yoo xamante ni yu jara jara jara jara gunge lañu. moo tax euh, tubaab fa kàlla macha allah rëccuwuñ ci dara. mais mais Mously euh, yow sànq si sa biir wax wax nga ne activité yi nga xamante ni coalition Macky 2012 maa ngi koy def jigéen ñi euh, leader yi maanaam du ñoo lay jàppale fan ngay jëlee li animé kuréel gi ëmb femmes yi. man député la au moins am naa indemnité weer bu dee. déggoo man la li tax président. delloo la ma cay def mais par organisation. dama ni la ma cay def man. la ma cay def. man ci sama poche la jóge kenn du ko weddi kenn du ko weddi d'accord dama ni loola moo tax ma di ko ca def ak xol bu sedd ndax le président de la république bu la joxee ndomb ak tànk dafa am ñu topp ci sa ginnaaw parce que moom ci boppam mënul tépp mu ne fa. kon nag moom bu la dee dimbali da ngay dimbali ña ca des. waaw mais xam nga tamit loolu tey par exemple tey yow même boo xooloon yeneen kuréel yi am. dafay am loo kees boo xamante ni moom mooy mooy tax euh, kuréel googu di fonctionner. waaw malheureusement nag. ñun moom ñun moom dëgg yàlla amu fa. léegi lan nga jàpp ne moo tax maître Moussa Diop taxawal beneen kuréel euh, ne moom beneen kuréel lay teg koo xamante ni moom mooy jiite jigéen ñi lan ban problème moo am. ah xam naa loolu nag. moom foog nga laaj ko moom lan mooy problème am. ban parce que man met Moussa Diop duma adversaire am duma noonam ndax bi xeex bi dooree muy xeex ak Aji Mbergane ak ak ak ak ak ak yeneen i leader yu nekk ci biir Macky ba ñu ma woo li ma jëkkat wax mooy man bu fekkee mën nañoo defaraat woowi ñi fi ne woon ñu jàpp ji politicien day toll foo xam ni kenn du ko woo naan ko indil ñu mbooloo dañ koy woo ndax expérience am day jariñ ku mel ni Sampol jaas jigéenam a ngi fi ku mel ni Moustapha Fall ci jigéenam a ngi fi ku mel ni Samba Julde Thiam ku mel ni Tete Jeju mais ñii c'est des personnalités yoo xam ne ci réew mi kenn mënu wax histoire réew mi te boole waleen ci ñu bokk ci biir Macky 2012 seen ay jigéen nekk ci biir Macky 2012 kon Maître musaa Diop problème am dëgg-dëgg ma ngay xeex ca fa mu ne ca ndakaar dem dikk ak syndicat am benn groupe boo xamante ni dañoo nekk ca wetam ci biir Macky 2012 bëgg a jël xeex bi jox ko coalition bi mu porte ko coalition bi xamal ko ni ñun duñu porter xeexu kenn ku dul président de la république lii mooy problème bi amul beneen problème ñun ñoo portewul xeexu Moussa Diop pourquoi ñu du ko porter ay yeneen i leader jaaroon nañ Ibrahima Sall ko gën a sonn ci ci ci coalition bi mu yor coordination bi liggéey ko avec brio bés bu ne mi ngi mi ngi mi ngi ci combat politique dangaa mos a dégg benn leader Macky 2012 jóg porter xeexam amul loolu mooy problème bi. léegi euh, euh, maître Moussa Diop euh, yéen dafa am ñenn si yéen ñu koy tuumaal ne dafa am benn agenda caché lan moo ci si xalaat. kenn tuumaalu ko dañu wax la mu wax. kenn tuumaalu ko man dama ni maître Moussa Diop dafa am agenda bu muy déroulé nangul nañ ko ko malgré xam nañ ni moom nee na candidat la d' accord nañ ci am na ci droit. candidat fan. 2024 d' accord nañ ci mais pour pourtant ñu jox ko coalition bi ni ko diri ni ko coordonné ndax ci nga bokk. mais bi mu ñëwee li mu bëgg a def mooy jël coalition bi def ko moomeelu boppam. ndax la mu jëkk a wax mooy leader bu ci d'accord danaa combattre Benno Bokk Yaakaar dinaa la financer ci local yi nga dem combattre leen loolu waxam la loolu du wax Moussa Diop loolu bu ko bëggoon te alaat ko sax waroon naa am neneen nu mu ko doxalee lu jul di ko wax foofa. du dëgg la waaw mais mais mais Mously Diakhaté yow euh, honorable député yow yaa jiite jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Macky 2012 yow la ñu invité tey ci seen émission pencum réew bi mais euh, xeex bi nga xamante ni gisoon nañ ne maître Moussa Diop doon na ko xeex ak Adji Mbergane Kanouté yow dafa mel ni kenn déggula ci woon. bi mu amee problème ak Adji te ñu woo ma dama leen ni suñu dee defaraat d'accord naa waaye xam nga kenn dégguma ca xeex ba maître Moussa Diop ci boppam ba ma ni ma man dama dégg ni danga bind lii bind lii ma ni ko maa ngi lay yónnee audio bi ndax man l'observateur laa waxal <coughs> te par téléphone la te li ma wax maa ngi ko enregistré yónnee ko audio bi ni ko man lii laa wax man nag maa duggul ci xeex ak benn journaliste naan ko dindi lii waxuma ko di demanti awma boobu jot maa ngi nii di takk samay bagage damay dem ca l'IPC yi ba Burkina mu ne ma mais dama la gisul gisuma sa kenn man ko man dama amoon ku ma doon représenté muy papa Amadou Kébé di la secrétaire général du réseau A3 yi ñu toog ba ci yàgg ñu ni plénipotentiel yi dootuñu ñëw man ko kon toogal man saa ma mën ñëw rek danaa ñëw mu ni ma ne ñëw ma yónnee ko ko xanaa kon nanguloon naa ko ak coordination mu dem convoqué réunion ñooña daje mu ni day dàq Adji Mbergane ak Moustapha Diagne kooko voté noonu parce que xam na ni man ci ay principe laay dox. coalition boo xamante ni ku ci nekk xamoo lu mu lu mu lu mu ban accord la am ak le président de la république alors que le président de la république c'est lui le coordinateur de la coalition Macky 2012 yow nga ñëw nga ni dangay ngay dàqe salaamaaleykum maaleykum salaam nga ni da ngay dàqe <coughs> d'accord nañ ci na dàqe na dàqe na def lu ko neex waaye euh, ñun duñu dugg ci yooyu. waaw mais ba nga xamante ni <clears throat> def na noonu dàq leen ba nu ca jógee pourtant taxul ma attaqué ko mais dafa dugg ci sama garde. parce que dafa dikk teggi jigéen ña fa nekkoon ni leen jàll leen fële bu ngeen bëggee naka rejoindre la les rangs daal di wuti ay jigéeni boppam teg ni ñi ñooy Fap Macky 2012. woowu la ci wax mu musu cee ak man. amul assemblée générale aussi. déggoo li ma wax xam nga assemblée générale bureau sortant xanaa moo koy moo koy de. moo koy organiser moo koy organiser. Mhm. man maître Moussa Diop boobu ma. awma ca lu dul ma ngay woote. ma ngay def assemblée général loola laa ca am. teg na ab bureau provisoire am defe naa ni suba la war a teg bureau bureau bi complètement waa ñun nag ñun dañ kon ni defal lu la neex wutal mouvement bu la neex waaye mënut a tudd mouvement Macky 2012 mouvement de femme ma Moussa Diop lay tudd waaye mouvement de femme Macky 2012 moom mi ngi fi mu nekkoon ba tey. d'accord léegi euh, Mously Diakhaté euh, li nga xamante ni mooy coalition Macky 2012 ak jafe-jafe yi nga xamante ni moo si njëkkoon a am xeex bi doxoon digganteem ak euh, Adji Mbergane Kanouté boobu noonu dafa am benn initiative pour la refondation de Macky 2012 boo xam ne Adji Mbergane Kanouté moom benn interview bu ñu defoon ak moom boobu la boobu la tegoon loolu ba léegi ma ngi exister wala dangeen ko da ngeen ko dakkandagoon. ñun ay Macky muy man muy aji mbergaan muy Moustapha muy Basiru muy Alaaji Ibrahima Mbow muy Maodo malik Mbay muy Tete Jeeju muy àlla Dieng muy professeur ñaa muy Sampol jaas muy Ndaan Diouf muy keneen ak keneen ak keneen koo fi mën a dégg ñun ay Macky 2012 lañu dañu ni initiative de restructuration de la coalition Macky 2012 loolu commission la bu ñu teg pour ñu restructurer mais amul beneen kuréel bu ñu teg li fa ne ñun ay Macky 2012 lañu. Maître Moussa Diop nag moom moo xamul lu mu doon waaye ñun li ñu doon xam nañ waaw mais yow euh, Mously dama gis que ne si say wax que ne euh, leader yi nekk ci coalition Macky 2012 yëpp. Euh, ci say wax yow la ñu yow la ñu àndal ndax seen i yabaloon nañ ay ay jigéen ñu ñëw représenté leen ci kuréel gi nga xamante ni moo ëmb jigéen ñi. te yéen euh, coordination bi am na ñeneen ñu ko jiite woon avant maître Moussa Diop te coow lii fi am dégguñu ko woon mais suñ gisee mu coow ak Aji Mbergane Kanouté te yàggatul dara ñu gisaal yow nga def ci beneen sortie est-ce que tamit du leader yooyu ñoo nekk ci seen ginnaaw euh, mbirum complot am pour ngeen bëggu koo jëlee ci coordination bi. <laughs> xam nga nag man ku ma xam xam ni duma complot ku ma xam xam ni lu sama yoon nekkul dama cay maandoo coow lii du moom rek ak Adji Mbergane parce que maître Moussa Diop tas na jeunes yi teg na mouvement de jeune am ah waaw alors que jeunes yi nga xamante ni ñoo yoroon mouvement bi di ko doxal mën naa la ni quatre-vingt pour cent bi ah demuñu ca moom mais Mouhamed Moussa moo dugg sama garde dama bëgg a wax sama wax. waaw léegi yow. dama dama danga ma laaj may ma tontu dama bëgg a wax sama wax man amul benn leader buy complot ak man leader yi dama la ni en l'unanimité ñoo yabaloon seen ay ay ay jigéen nañ ko demantir nañ ko weddi ba may liggéey ak ñoom ba yegg si ñu war a teg bureau jigéen ñi ñoo ma teg ci seen kanam ma delluwaat ca ñoom defal leen compte jigéen ñoo ñee ñu ma joxoon nag defe naa ni su fekkoon liggéey ba jaarul yoon walla lañu war a def defuñu ko politicien bu ndaw ak bu mag amul bu ñàkk fayda amul ñoom ci seen bopp ñoo may jëkk a teg teg ma fële waaye man maa dul nungu di liggéey ak benn group ba ñu war a def ay renouvellement man leen organiser wu leen ngeen def renouvellement yi di xaar Maître Moussa Diop woote xanaa war na maa woo man. dafa jël jigéen femme yi. bu dul dara sax man jigéenam laa de. Mhm. te aw ma moom benn xaar ma yàlla. Mhm. ndax ba mu amee problème ak aji mbergaan moomu ngay wax. Mhm. et pourtant teewul ma yabalal ko sama plénipotentiaire pour mu représenter ma ba. te te nekkoo dugg woon ci xeex bi aussi. te it dugguma ci xeex ba dama caa maandu. ndax damay bañ a tooñ. te duma dugg ci lu ma xamul. et xuloo bi li ko indi xam naa ko. ndax maa ngi woon ci biir paneelu panelu les leaders Macky 2012 te duma woon intervenir waaye maa ngi doon suivre kon xam naa lii ni xeex alors bërki démb bi ñu defee suñ conférence de presse bi may ñibbi si connecté wu laa gis ni génne nañ ma ci panelu conférence des leaders Macky 2012 génne ba yamu ca de mhm. mi ngi nii <laughs> kan moo la si génne. Mm, déglul ma wax la ki ma génne maître Moussa Diop. Mhm. maître Moussa Diop ma génne lu di. merci monsieur administrateur de la conférence des leaders de Macky 2012. wax ci wolof mu ni ko jërëjëf yow mi nga xamante ni yaay coordonné groupe bi. nga génne cette dame la génne ko. officiellement. moom dafa d' ni dafa kon féete ji fële. ca Moustapha Diagne ca Aji Mbergaan ca Basiiru Jaxate ca beneen camp ba mu ni set daam laa nag dinañ ko dinañ ko dossier dinañ ko teg conférence des leaders prochainement mu ni xoolal lu mu bëgg a wax foofu sa dossier maanaam maanaam maanaam man sama problème maanaam man dinañ ma conférence des leaders dana diagnostiqué daal lu tax man may génn ci presse bi di wax ak lu tax may wax ni dama soutenir le président de la république xoolal mhm. mu ne am na am na droit bëgg président de la république am na droit bëgg président de la république ak IRM maanaam l'initiative pour restructuration de Macky 2012 mu ni ñoo nga koy cay dimbali ca bëgg googee mu bëgg euh, mu bëgg président de la république waaye nag moom ak Aji Mbergane Kanouté comme mu ni comme ni ñu def ak aji mbergaan kanute ba dàq ko nee na dafa dàq noonu aji mbergaan kanute man itam sama situation dana ko xool ba xam daf maa war a dàq wala déet. waaw lii la lii bind. waaw mi ngi nii waaw. Moussa Diop a bind. waaw mais doole ji mu am nii moom mooy lan. wala moo ma jaaxal nag. doole jee ma doole ji xam nga <laughs> sëñ Fallou. Uh-huh. yàlla na yàlla yokki leeram daa fekk waajay gor garab ga. toog ca car ba di ko gor mu ni ko eh Diop mu ni ko ah nga ma mu ni ko xam naa noonu rek nga waroon a sant <laughs> ba léegi mais Moussa li muy def nii Moussa li muy sama la sant waaye daal Moussa daal Diop la sant daal. mais Moussa li muy def nii maanaam maanaam li muy def nii moom fan la ko teg moom. moom laa xamul nag xam naa loolu moom da nga koy laaj fu mu ko teg ji doole lii de la wax nee daam bii nee na dafa bëgg président de la république ba dafa nekk en face avec le président de la république ñoo ngi ko cay dimbali nee na ñu ngi may dimbali ci président ji ma bëgg président Macky Sall ma bëgg ñu ngi ma ciy dimbali waaye sama kaa danañ ko seet. foofu la maître Moussa Diop toll. d'accord mais léegi coalition bi. Hmm. Euh, yéen est-ce que tamit tey par exemple coalition bi mu nekk coalition boo xamante ni tey euh, lu man de xew tamit coalition Macky 2012 coalition bu historique la loolu kenn mënu ko euh, weddi mais yéen est-ce que jafe-jafe yi fi am yépp. ci kaw maanaam présidence Macky Sall moo xam ministre est-ce que yebal na nit pour mu jéem a xool li ci biir dëgg-dëgg pour waxtaan ak yéen. le président de la république bi coow lu jógee daa yebal Mahmoud Saleh ni ko na déglu ñaari camp yépp ba mu wootee nag man nag fekkuma fi sax waaye benn camp bi wuy ji na waaye Maître Moussa moom dañu di wuy ji Mahmoud Saleh moo tax ma ni ko mu wuy jiwul Mahmoud Saleh ndax âge ndax li mu représenté ci réew mi mu war koo wuy en tant que ministre d'état boo xam ni la président de la république moo jël xalimaam nommé ko ministre d'état ni mu ko nomee moom directeur moo tax ma ni lu fi waay yor di tëggu ba dee ni am nga doole le président la ko jox commencé par man kon ku mu jox doole rek war ngaa respecté kooka ba information yi may mujj am wujjuwu ko jërëjëf euh, Mously Diakhaté honorable député euh, yow nga nekk euh, jigéen bi jiite coalition Macky 2012 jigéen ñi euh, ginnaaw nag bi ñu waxee ak euh, jafe-jafe yooyu nga xamante ni am na ci seen euh, coalition bi kon daal ëllëgu coalition bi moom maanaam doy na waar daal liñ mën a wax. doy waar de ak a ñi ci nekk te réglé xam nañu ni. Mhm. kii dafa am problème. dafa am asandaw boppam ñun na contre lu ñu asandaam parce que ñu ne suñu amee lu ñu bëgg a def dañ koy def mais la coalition moom daf cee warul a jot dara bu manee coordonné def li nga xam ne ñi fi jaaroon moom la ñu doon def mooy vulgariser mm-hmm. les réalisations de la présidente de la république amplifier le champ politique du président je pense que foofu la ñuy waxee mm-hmm. mais vraiment euh, yenn yi daal c'est honte mais moo nekk seen coordonnateur ba tey yéen femmes yow femme femme yi nga jiite. moom moom moom euh, suspendre nañ ko amul benn décision boo xam ne da koy jël mu valable maître Moussa Diop ne plus le coordinateur Macky 2012. kan mooy coordonnateur bi. moom mu Amadou Moustapha Diagne. mooy coalition mooy. coordinateur coalition Macky 2012. kan ñun nag duñu dàqe ndax amuñu droit dàqe waaye am nañu droit suspendre. dañ ko suspendre waaw. d' accord jërëjëf euh, honorable député léegi nag ñu daal di wax ci li nga xam ne mooy seen euh, parti bi di APR. Euh, Mously Diakhaté yow ñëpp nag xamee na xamee la nag maanaam li nga xalaata wax moom maanaam da nga koy wax léegi dafa ne dañu wax ne dafa am ñu jege Macky Sall ñoo xam ne dañu am ay ambition présidentielle am ñoo xamante ni nee nañu. ay traître la ñuy wër Macky Sall ñu dégg Baara Ndiaye bi jiite maison de la presse wax ko dégg nañ Mambay Ndiaye wax lu mel noonu euh, ñu dem bay tuumaal Aminata Touré di tuumaal Amadou Ba ñu bari ñu leen di tuumaal ne ñooñu dañu am ay ambition présidentielle yoo xam ne dañu koy nëbbu ñu bari ñoo ngi laam-laamee loolu yow lan moo ci sa xalaat ci débat boobu. waa xam nga nag euh, man <laughs> ndeysaan euh, maître Moussa Diop juumul. nee na cette dame là dafa bëgg président Macky Sall neen ko cay dimbali da dama ko dama loyal ci sama ànd ak moom ba ñu bëri dañu defe ni APR la man duma APR allié la dama yor sama mouvement ñi di ko wax A3J pour l'émergence ànd jàppoo jëf ci jàmm ci loolu la ñu àndee woon ak moom 2012 le président Macky Sall nag wax dëgg yàlla nit la koo xamante ni ku jar jàppale la ndax coow li bari na ci réew te tey li koy xaar ci ay réalisation bari na ku ci nekk fa nga nekk defal la la war te bàyyi wax ju ñaaw kër jàmbur nag duma fi dugg di àtte te sama kër di tàkk comme sama kër day tàkk nag ma yor benn siwo li ma yor akus néew ci sama néeg laa koy tuur ah, waaye duma duma du ca dugg di wax le le li nga xam ni nag wax dëgg yàlla man moom laa cay wax mooy ñooñu ñu wax noonu ni dañuy coup d'état coup d'état moom ku ko def Macky Sall yaag moom ay ànd buy dem du la fi bàyyi. waaw ndax yàlla ci boppam moo jëlul nit teg ko ci boppum réew. 15 millions de sénégalais ci biir réew mi de plus de 2 million sénégalais de l'extérieur defe naa ni boppam neen jiitewu leen tey li am solo daal mooy ñu boole suñu bopp boole suñu doole. jàppale ko mu yeggale lii mu diggee woon ak senegale yi réew mi am sérénité ñu mën a jariñoo ressources yi fiy génn loolu mooy li am solo waaye wax ju sew sewaan ji moom vraiment man neexuma même ku ma ci woo sax neexuma par principe nag boo ma boo duggee ci sama garde di nga xam ni man kenn du dë kenn du bët samay garde samay garde fu kenn du ko bët waaye ku xam musli xam ni ban bëgguma coow parce coow dafa baaxul xanaa xamoo ni garab yi ngay fekk segal yi nekk ci sax di di yuuxu bu yàggee garab gi day ruus ba mel ni lu dee coow moo jigul sax bant olof da koy wax il faut ñu indiwaat suñu xel delloosiwaat suñuy xalaat xam ni la président Macky Sall li mu soxla tey mooy ko accompagner ku ko jàppale ci feebar bu rëy bii dal ci monde bi te jaaxal àddina bi yépp nga xam ni ba mu nee du ma mën a jëli ña ca Chine danni lu tax mu di ko wax. wax moo tax ma ni nit bu la jiitee danga koy jox ci respecté ko ndax la mu xam-xamoo ko fa muy amee information yéegoo fa tey wër na àddina bi ndax dañuy jëli ña ca France est-ce que dañuy jëli ña ca Italie est-ce que dañuy jëli ña ca Australie. que dañuy jëli ña ca Allemagne xanaa xamoo problème bi mooy ñi jëli woon seen ay citoyen ñoom la feebar bi topp le président Macky Sall man dama koy ñaanal gudd fan ak wér. te respecté ay décision bari ngaañ nañ ko ci loolu. moo tax man la nit ki bu la jiitee danga koy respecté jo respecté ay décision mais communication bi mu si defoon nag moo baaxul kon. xay na nu mu ko waxee ak ni ko sénégalais yi waroon a déggee wax ja dafa laajoon développé. te nag dafa am équipe bu nekk biir présidence yor communication ñooña ñoo waroon a gën def conférence de presse leeral sénégalais yi lan moo xew parce que li xew mooy du dem jël avion rek jël leen indi ña ko defoon ñépp am problème ba fa laaj ay mesures sécuritaires ba nga xamante ni feebar bi du topp ñiy jóge foofa est-ce que loolu lépp nekkoon na moom information bi muy am amuñu ko ñun. waaw d'accord. parce que tey partout dans le monde Sénégal la yàgg fa. waa ndax da leen di jëli. léegi euh, honorable député euh, laaj naa la sànq ni ci ñi nga xamante ni tey ñoo war président Macky Sall te ñu wax ne dañoo am ay ambition présidentielle euh, bien vrai que yow seen kuréel googu maanaam ma ngi si ay jafeñ-jafeñ yoo xamante ni ñëpp xam nañu ko. yow nga ne ñëpp xam na tamit da nga bëgg président ba liir nga ko tàng ci message bi la maître Moussa Diop yónnee. mais yow su dee tey yow ma ko man de damaa bokkoon ca groupe ba mu koy yónnee di lu génne nan na na ma génne groupe bi. te bu ñu dikkaatee conférence des leaders dinañ diagnostiqué xool kaam ndax dañ koy dàq wala duñ ko dàq nañu def aji mbergaan kanute. léegi bu ñu la dàqee léegi nag nee na dafa may dimbali ci bëgg gi ma bëgg président man ko jërëjëf. léegi bu la dàqee conférence des leaders. ah moom kay dàq na ma conférence des leaders xanaa kay Macky 2012. ma daan dox danaa da koy officiel waaw loolu la kay laay xaar. d'accord loola moom bu ñu cay yeggee wax ju wax ju waa togg ñoragul kenn du ko le d'accord mais ñi ànd ak Macky est-ce que am nañ sañ-sañ am ambition présidentielle. bien sûr mais moom wax na ko devant tout le monde wax na ko ci presse bi wax na ko conférence des leaders wax na ko fépp def na ci émission trente de 30 minutes benn télé di génne moom lu mu def ak fi mu jaar. pour wane ni kii mën na mën na nekk euh, euh, candidat am na droit nekk candidat. ñun xam nan ni nee na candidat la te bañ a luñ koo jox coordination bi mu mu mu coordonné ko mais malgré tout cela dañoo deen woon bu ñëwee day liggéey pour le compte du président de la république parce que liggéey pour le compte du président de la république mooy liggéey pour réew mi coalition bi li ñu war a def mooy di wane li président di def ci ko di ko xalaatal di ko bindal di ko yónnee que ni ko war ngaa war ngaa intervenir fii war ngaa intervenir xam nga li ma la di défendre le bilan du président de la république di vulgariser li mu def ci sénégalais yi sénégalais yi di ko xam di wax ci situation réew mi national ak international di soutenir ay position foofu la ñuy xaar la coalition Macky 2012. d'accord jërëjëf euh, mbokk yi ba tey yéen a ngi ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité honorable député Mously Diakhaté nekk coordonnatrice euh, les femmes de de la coalition Macky 2012. Euh, léegi nag fan yi tamit Mously ci benn bokk yaakaar ak ñu wër président Macky Sall dégg nañ Mohamed Boun Abdallah Dione yëkkati kàddu wax ne Macky Sall digganteem ak sénégalais yi jeexagul fii ba 2035 ñenn ñi nag dañoo jàpp ne dafay xàllal Macky aw yoon li mu bëgg a wax mooy fas yéene Macky Sall am beneen mandat ñu gis mbay Ndiaye moom tam wax ne euh, constitutionnellement parlant Macky Sall am na sañ-sañ def beneen mandat euh, coow li jamono ji judd na te benn at kese la Macky Sall defagun ginnaaw bi mu amee ñaari lu mandat ci bopp réewum Sénégal yow euh, lan moo ci sa xalaat. mooy le président wax ñëpp dégg nañ ko bun Boun Abdallah Dionne lam wax ñépp dégg nañ ko mais man sama analyse personnelle laay indi parce que nit ki bu waxee ba pare la mu ca jublu moom moo koy xam ëmb la bu ñuy ëmb takk teg yow yaay tekki xool na la ca neex nga jële ko noonu ndax wolof dafa jafe man li ma analyser mooy le président de la république bi mu ñëwee ci réew mi dafa tëgg programme am bu rëy boobu ñuy wax plan Sénégal émergent horizon 2035 kon defe naa ni foofu lay waxee parce que ku nekk xam na ni état continuité la te defe naa ni sénégalais yi duñu fi mën a duñu fi mën a nekk mukk duñu fi mën a nekk mukk di di di di di wax ni le président de la république dafay nekk fii ba 2035 sama analyse personnelle laay indi waaye comme plan bu rëy boobu nga xamante ni wax dëgg yàlla Afrique gépp ci lañu sukkandiku pour def plan Bénin plan émergent Bénin plan émergent Togo plan émergent euh, partout Mali Guinée Gambie foo dem ci Afrique ci plan boobu lañ ko copier xam ne mën nan cee sukkandiku pour développer seen réew kon man dama defe ni foofu lay foofu lay waxee mais waxewul feneen man du ma analyser mais contexte boo xam ne ñëpp ñoo ngi wax ne mag Sall dafa bëgg def beneen mandat ci la ko Mohamed Dionne waxee le président moom nee na du ci wax ndax bu nee damay def benn man benn damay dellu ci mandat opposition bi réew mi kenn dootu liggéey su nee du def ñi mu àndal ku nekk xëcc aw la jëm fa ca ndes te moom loola ñoru ko kon il faut ñu xolli li président wax li ko ñor mooy moom mu concentré wu ci li mu digee ak réew mi ba yeggale li mu war a def foofu laay gisee. léegi kàddu yi euh, Mbaye Ndiaye kane ak Sall na sañ-sañ def beneen mandat. moom duma ci tontu man ni ma ni ma defee sama analyse la am droit def analyse li mu xam ci li mu xam xay na ci ci ci constitution ci règlement intérieur yi man xaw ma ko ci. dama duma dugg ci jooju wax. d'accord euh, Mously euh, Diakhaté honorable député xam nga tamit tey par exemple boo nekkee ci pencum ndaw réew mi coalition Macky 2012 nga jigéen nga jiite jigéen ñi. Euh, am nga xalaat nag ci ni nga xamante ni tey moom la réew mi dox te yéen parti boobu di APR ki ko jiite tey moom lañ dénk réew mi di Macky Sall mu jiite coalition Macky 2012 jiite coalition Benno Bokk Yaakaar léegi li nga xamante ni tey Sénégal yépp nemmeeku nañ ko mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne Macky Sall. am na sañ-sañ def beneen mandat kenn du leen dàq ñi nga xam ne ñooy wax ne Macky Sall amuñu sañ-sañ def beneen mandat ku si mel sa Moustapha Diakhaté ak Sori Kaba gis nañ sanction yi nga xamante ni moo wàcc ci seen kaw loolu tamit euh, jaaxal na sénégalais yu baree bari yow loolu lan moo ci sa xalaat doxalin woowu. ci lan. Euh, troisième mandat Macky Sall. déggoo li ma la ci wax. xanaa kay dangaa bëgg ma dellu ci man li ma li ma xalaat wax naa la ko. ci non wax nga li nga xalaat mais dama ne. la le président de la république kenn obligé wu ko woon muy réduire le mandat à cinq ans. il faut sénégale yi ci seen bopp ñoom ñuy xalaat. parce que bu fekkee ni dafa defaat beneen mandat wu cinq ans. yaa ngi dégg li ma la wax maa dégg bu baax a baax. soo ko boolee lépp 17 ans lay doon. et pourquoi pas bu ko neexoon mu bàyyi ko 7 ans. def ñaari mandat wu 7 ans muy 14 moom moo xam ne fi àddina bi toll fi démocratie toll nit dafa war a def lu pragmatique fast track ku gis le président de la république li mu réalisé ci sept ans yi nga xam ne nit ku bëgg liggéey la ku bëgg a liggéey la comme moom moo ko jël dugalaat ko ci constitution bi mais pourquoi mënuñoo gëm ni moom lii mu dugal ci constitution bi yóbbu ko référendum def ci ay milliards ñu voté ko bu ko gëmul woon ndax dana ko def non il faut arrêter. waaw d'accord. d'accord léegi léegi Mously euh, li ma la laaj nii man xam naa ne peut-être da nga déggul question bi waaye man tontuwoo sama laaj li ma la la wax mooy ñi nga xam ne tey ñooy wax ne Macky Sall amul sañ-sañ def beneen mandat ndax Souri Kaba daf ko waxoon ñu dàq ko Moustapha Diakhaté wax ko ñu dàq ko ñi nga xam ne ñooy wax ne Macky sàll am na sañ-sañ def beneen màndaa lan moo tax ay sanction waddul ci seen kaw yow lan lan moo ci sa xalaat moom da laaj président ni ko lu tax ñuy sanctionné woo leen parce que man yaakaaruma ni diggante war naa am ak wërta am mandat dinañ ci dàq nit déedéet dafa am leneen luy ne ca biir loo dul xam dama la ne léegi nit boo ko jiitalee da ngay respecter ay décision du dëgg mm-hmm. voilà loolu moom xam naa boo ko gisee da boo ko laajee na la ci expliqué mais man moom mënuma caa tontu lu tax mu dàq leen ndax looloo tax mu dàq leen mm-hmm. gaw ma loolu d'accord jërëjëf am na lu jiitu loola am na lu ne ca biir loo xamul te du lu kenn xam parce que nag la président de la république mooy nit koo xamante ni li ma gën a naw ci président Macky Sall mooy loo séq moom bu génnee ci mbedd mi yaa ko wax ma di ko ca roy. jërëjëf euh, Mously Diakhaté honorable député léegi nag ñu wax ci euh, coalition. léegi ñu wax ci euh, li nga xamante ni mooy collectif ñoo lànk di xeex li nga xamante ni moo jëm ci wàllum courant bu cher bi ñoom seen taxawaay lan moo ci sa xalaat. ah mais ñoom dañuy opposé rek. ñooñu noonu du ñu du ñu ay opposant la ñooñu du ñu ay politiciens. Ah, ah, ñooñu société civile bi la. ah doo ko xoolee ku ca ne ci parti la jógee. xam nga ñun ñoo ngi ci groupe gu ñuy wax COSEF dajale les femmes leaders sénégalais yëpp mais ku ca nekk booy ñëw ci parti nga jóge ñoom ay opposition lañu dañu opposé wu ñu ngi ci seen rôle mais ñun nan fexe ba ne ci suñu rôle suñu rôle mooy dañoo duggoon ci réew mi laaj réew mi ñu jox ñu ko ñu am lu ñu diggee ñoom nañ fexe ba accomplir mission boobu loolu moo am moo mooy li am solo. waaw mais ñooñu ñoom ci société civile bi la ñu wax ne ci lañ bokk beneen bi tamit courant bi nga xamante ni tey moom la yokk yow nga nekk mère de famille comme ni ko ñëpp nekkee yokk courant googu ndax jàpp ne amul yeneen pexe yoo xam ne état bi mënoon na ko def ngir loolu a am. waaw xam nga courant bi les fois ma ne ñi ngay yokk gi dañ cee jot. waaye bu fekkee ni li ñuy yokk ci courant bi pour un temps déterminé la. bien déterminé parce que ñi nga xamante ni dañoo nekk ci àll bii ci réew mi la ñu bokk te ñoom amuñu courant ñooñ dañoo bokkul ci réew mi pour pourquoi rafetluwuñu centre bu rëy bii ñu inauguré bërki dem muy première en Afrique deux millions sénégalais war cee bénéficié wu pour am courant courant pour tous xam nga le président de la république dafa dugg ci réew mi 2012 dafa dugg ci réew mi 2012 wàññi prix yépp wàññiwu ko yem ca da ko wàññi ba pare tëye ko te ku nekk xam na ni état foo dem ci àddina bi état ci ay taxes lay dunde mais suñu budget bi buñ koy tëgg ci lu koy tëgg ci ay taxes lañ koy tëgg ak ay ressources yu jóge eh, bitim réew xanaa doo jël sa lépp teg ko ci ni daa war a jóge bitim réew ñëw alors que yow mi ci biir réew mi nga war a participer ci tali bi ñuy defar war a participer ci hôpital bi ñuy tabax war a participer ci école bi war a participer ci leneen ak leneen ak leneen mais loolu fu muy jógee ci ay taxes lay jóge mille 2012 nag à 2019 vraiment koo xamante ni téye nga prix yi yokkoo ko bu leen fàtte ni le président de la république bi muy ñëw ci réew mi gaz bu ndaw bi junni lay jar léegi boo joxee mille dañ la cay delloo. am na ñoo xamante ni amuñu deux mille par jour bu leen fàtte xam nga nit bu defee lu baax danga koy encourager su defee leneen it nga won ko ne gis naa lu ko gën. mais wàññi wàññi wàññi wàññi monde bi doxewul noonu monde bi doxewul noonu ñi amul courant te bokk ci réew mi ci réew mi lañ bokk te ñooñ dañoo war a am courant. d'accord léegi euh, dialogue national bi est-ce que coalition mil 2012 am nañ fa représentant. ah bien sûr mais mais dialogue national mais coalition Macky Macky 2012 la colonne vertébrale c'est l'APR. c'est pas benn entité bu ñu berfale la coalition c'est l'APR c'est l'APR la colonne vertébrale de la coalition. am nañ ko fa kay bien sûr. les les partis yi nga xamante ni dañu bokk ci coalition bi ñoom ñëpp am nañ ñu ngi ñu ngi dem ci assises nationales yi. c' est des grands hommes des grands hommes bokku ñoo ko ñeneen ñi ñi diine waaw d' accord léegi jërëjëf euh, Mously yow euh, ñu ñëw nag ci mouvement bi wax ci euh, deux minutes 3 minutes li nga xamante ni moom mooy A3J pour l' émergence jamono ji fan la seenub liggéey toll. waa xam nga A3J pour l'émergence nag day mouvement bu rëy rëy rëy parce que bi ñu koy créer dañ ko créer woon ci Hann bel boobu maa ngi door a jóge ci eh, ci jëf jël bi ñu ko créer en 2011 ñu ànd ak le président Macky Sall dem mille 2015 ñu amplifier ko yaatal ko dajale association yi fa nekkoon ak GIE parce que ak ñi nga xamante ni dañuy am mbooloo dajaloo di def ay action te amuñu ay kayit ñoom ñëpp ñu wutal leen ay kayit bi ñu sumbee liggéey bu rëy boobu nag yàlla def partout ci Sénégal foo dem am na ñu fa jóge ñëw bokk ci A3J pour l'émergence ñuy 274 association GIE loolu mooy réseau boobu nga xam ne tey moom lañ yoon réseau bi nag yàlla def ndeysaan ki leen jiite ab député rek la xam amul dara waaye bi yàlla defee. ñu renouveler sama mandat sama deuxième mandat 2012 yàlla def ma dem ci ñaari institution financière yu ne fii ci biir réew mi kenn ki jox ma 30 million ki ci des jox ma trent millions di ko dagg à la source direct ci sama salaire xanaa dara desu fa. ma am ay partenaires espagnols yu jóge Valencia ñëw fi defal ma phase test pour jàppale ma ci jigéen ñi ndax xam na ni sonn naa. ñu defal leen ay formation session defar leen yeneen i formation ba pare defal ma fas test jox leen jox ma 27 millions muy 87 millions. ma dem fële ca an an an an an an an bel dem biir maris lu ye fa R plus 2 dëkk ca kaw def ay bureau ci suuf ubbil jigéen ñi microfinance ñu ñëw leen liggéey ñuy fay waaye ñoom pour ñoom xaalisu état la pour ñoom. état ba ma jox xaalis bi ewaay eh ndeysaan te fekk booba man maa xam ni comme man dongu lañu am fokk ma xool nu may def ba ñii ma àndal am ci lu ñu jàpp ba ñu fayul xaalis baat man maa jéngu fay ko ba mu yegg bi élection législative 2017 ñëwee damaa wutiwaat argent propre ni leen nga kaay leen ñu soppi doxin parce que bii doxul sampal leen ay legetu jom ku nekk ma fekk la ca kuréel ga nga nekk sampal la sa legetu jom ni leen xaalis bii nag du xaalis bu ñuy séddoo xaalis bu ñuy liggéeyee la pour yéen ñëpp ngeen man cee jariñu xaalis la boo xam bu ngeen ko liggéeyee ba mu yàgg ngeen dem ci institution financière crédit mutuel yi bu ko defee ngeen am costion solidaire ñu lebal leen ngeen liggéey dem di fay am na ca macha allah leget yoo xamante ni tey raw na sax sama njort am na ca yoo xam ne nag jeex na bu yàgg seddoo nañ ko pare ah. waaye noona laa def ak xale ya jox leen seen kees groupe gu nekk Euh, euh, euh, localité bu nekk ma dem fa jox xale yu góor yi ak yu jigéen ya million leen xool leen lu ngeen ci mën a def bu ngeen dee def poulailler yéen a xam bu ngeen dee jënd ay bâche yéen a xam bu ngeen dee jënd ay chaise yéen a xam en tout cas noonu laa def ak ñoom def ko Jaksaaw def ko Ndand def ko Kër ma sàmba def ko Ngeewul def ko fépp. les les communes Hann Bel-Air est-ce que tey xalaat nga élection bu ñëwoon tey nga samp sa ndënd. Hann bel nag. xam naa dangaa siiwarul actualité bi waaye 2014 bi mu weesoo dama leen dootuma dugg ci liste ndax li tax dootuma dugg ci liste mooy ab dëkk boo fa nekkee ba falu fa ñetti yoon nag dangay bàyyi man duma sukk ci ndab ba ñu naan ma génneel sa loxo yi cax ko ca àll ba loolu benn la beneen bi mooy dama leen a organiser ba ñu yegg jeunes yi comme jigéen ñi alors que ñoom ñuy coordonné man man leen bàyyi leen mën nag ma nekk seen responsable moral parce que nag wax dëgg yàlla gunge yegg baaxu ca bu ngeen demee ci ay élection nag mouvement a 3 moom day bokk waaye man musliman duma bokk waaye mouvement bi moom day bokk parce que même Thiès am nañ fa ay ay ay ay conseiller municipal ca kii ba ca ca ca ca ca ca ca ca mairie ba te ci a 3 lañ ko amee tey boo demee dëkk bu ñuy wax Kër ma sàmba bu ñuy wote dañ naan ma fu ñuy wote mairie ba ñooy deuxième adjoint ba daanaka xaaju conseiller yëpp sax ci ñun la ñu nekk alors noonu lañ ko defee fu baree boo demee ngin Guinée fekk ñu fa boo demee Kédougou ak sama deuxième vice présidente Kédougou la dëkk sama premier vice président il est le le le le le secrétaire général des marière du Sénégal le mm. président national des mairies du Sénégal réseau bi du réseau bu ndaw réseau bu mag la waaye réseau bu métti ci man la moo tax ma retiré wu nag organiser leen mu métti lool ci man waaye ku ci nekk ma fekk la fa nga nekk jox la ca la ma la ma la ma yorokus néew ni la organiser wu leen ngeen liggéey foofu la ñu toll tey man nag en tant que musulman dootuma dugg ci ab liste euh, euh, locale parce que am naa ñetti mandat boy na il faut savoir arrêter d'accord léegi euh, monsieur Diakhaté fi ñu koy jeexalee nag mooy euh, gis naa sa conférence de presse bi nga xamante ni def nga ko en tant que euh, coordinatrice des femmes de la coalition Macky 2012 mais foofu wane nga fa li nga xamante ni mooy xadar yow da nga bëgg a jàmmaarloo ak maître Moussa Diop ci biir kuréel gi wala da ngay fas yéene tempérer pour jàmm ñëwaat dangay bokk si ñuy dox tànki jàmm wala da ngay da ngay tàngal comme ni nga ko commencé. man mosuma commencé tàngal. nee naa la moom moo dugg sama garde moo ñëw fekk ma may liggéey ak jigéen ñi Macky 2012 ji mu dugg ci <coughs> indi ay jigéenam teg ca ga ni ñëw leen bokk bu ngeen bëggee ñun duñu doxe noonu moom maître Moussa Diop xam na ni man lu ma xalaat laay wax ndax nee naa la fii bi xale yi ne dañoo bëgg a def dara pour le 8 mars sarse ma pour ma wax ko ko c'était juste ñu xam ni jigéen yaay soxna équilibre social ñaari couleur yi bu ñu dajee danañu mën a waxtaan ba bu ñu demee ca président de la république dañ ko naan waxal ñu ni nga bëgg ñu retiré wu dem def ko ni nga ko bëggee waaye maître Moussa Diop moo ma attaqué. maître Moussa Diop moo ma attaqué. man du ma du ma du ma du ma tàngal kat waaye kenn du dugg ci samay garde fou voilà. Euh, jërëjëf euh, honorable député lan ngay tàggoo mbokk yi. waaw xanaa di ko raisonné. ñu ko na arrêté. yi muy def demul fenn. du jàll. du jàll parce que moom amul benn décision boo xamante ni maître Moussa Diop da koy jël mu valable ci biir Macky 2012. dañ ko suspendre dafa war a xam loolu moom day dàqe ñun amuñu droit dàqe ndax moomuñu coalition bi waaye nag ku ñuy jiite ku ne boo doxalul yoon ñun la fi jóge la jëlee fi jëlee la fi ñu la jóge fi. li mooy li xew jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon déglu rajo réew mi fm seen émission pencum réew mi tey nag ñu invité woon honorable député Mously Diakhaté jiite jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Macky 2012 Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci euh, micro bi Mamadou jaaw jàll ci wàllu euh, technique bi mbokk ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm